Barbara! xanaa ci sant ci yàlla rek bi suñu borom defee ñu dellu siwaat fii ci jàmm te ñëw fii ci niñ fi daan ñëwee muy dundal fi lislaam ni ko Cheikh Mouhamadul Mourtada mu baax ma daan defe loola doon continuité ñu ñëw fii ci Bamba Day bii nga xam ne at mu ne ñu célébré ko fii yëkkati fi baatub laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati fi xasida yi sëñ Tuubaa yi eh, sikar fi woote fi baatub lislaam loolu nag Cheikh Mouhamadul Mourtala mu baax moom moo ko fi jëmbatoon loola doomam ju baax ji di sëriñ Mamor wéyale loolu nu ànd koog taalibe yëpp bis bii nag doon bis boo xam ne bis symbole bu rëy la fii ci Amérique mboolem fu fi taalibe nekk ak jullit nekk ñu ñëw fii àndandoo eh, def bis bi nii ñu ko defee yëg-yëg bi ñu ci am nag mooy am ci mbégte bu baax a baax ndax dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañ fiy ñëw di yëkkati matu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ci xasiday sëñ Touba yi loolu nag doon loo xam ne ñun ñëpp suñu fierté la sunu sunu sunu mbégte la ndax lii ñuy def nii euh, ci àdduna bi fépp lañ koy yóbbu kon bu ñëwee fii tey fii ci New York di ko fi defee am nañ mbégte ak yëg-yëg bu rëy a boo xam ne mooy bi taali bi yëpp di yëg kon ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mourtada sunu borom dolli ko ay ngërëm ak leer te taas ñu ci barkeem doomam jii di Serigne Mamour sunu borom yàggal ko fi mu wér mu yàgg jiite liggéey bi ànd koog waa Mika ak taalibe yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. édition 2022 bi li ma ci mën a wax mooy Serigne Touba amati na ndam Serigne yàlla jox na ko ndam loo xam ni ba ilaa yomi di ndey du jeex Serigne bi lii lu ko gën a yéeme amul Cheikh Mouhamadul Mourtada al mujahidul akbar ba mu ñaanee lii ba suñ borom may ko ko jaare ci ñii nga xam ni ñoo yóbbu woon waajuram wa waaye du ñu échegul woon lii du am noonu sëñ Tuubaa yi bañ échegee la lii am yàlla dogal nag euh, sëriñ bi waxoon bindaloon boppam ni nifaali wa ibxaa'i wa fawzi bila anan bi kaw ni bay Mustafa tatabayyan may tagg yonent bi dina tasaaroo ci àddina sépp ñëpp di ko gis kon daal di am solo mooy nañ xam ni sëñ mooy résultat lii am Amérique kenn benn xeet bu ko yàlla mos a may amul ci àdduna te li gën a yéeme mooy police américain yi ñooy ñooy garder nit ñi ñuy tudd yàlla kon lii dama ni euh, nit ku ñuul war nañ cee gën a ndamoo la ñu waxoon naan dañuy ndamoo Martin Luther mam ne ay have a lii nag kon nit ku ñuul ki ko def communauté may ko ko jullit yëpp war nañoo gën a ndamoo Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax tey xàmmeewoo fi murit tijaan xaadir laayeen li am solo mooy l'islam rek te sëñ Tuubaa moo ni maay tasaare l'islam maa yëkkati lislaam wa bi yajadidi sabil yàlla yëkkati lislaam sama jëmm kon daal li am solo mooy nañu ñaanal sëñ Mourtada al mujahidul akbar mi ña mi nga xam ne ci ci ci ci ci ci ci moom la lii jaare indi woon cinquante cinq mille dollars def ko ci kër sëñ Touba gi ngoon ñu war a fondre seen ngir jumaa ji kër sëñ Touba gi wan tori semaine ak kon daal li am solo mooy nañ ñaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fi ndax ak ayam lu bari feeñ na Sëriñ moo ne woon moo la kën i duniyaa wa qara samadu yàlla moom loo na ma ndax nee na li baax lépp yàlla jox na ma ko xostuma waa hibal kiraami turra la daa taxaaru kafaani shorra kon sëñ Tuubaa am na ndam yàlla yëkkati na ko ci kaw nasaraan yi yàlla yëkkati na ko ci kaw nasaraan yi li yàlla yónni yorente bi muy lislaam ki koy tasaare ba ñëpp xam ni moo moo moo moo mooy mooy li li suñ borom tànn mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mooy daara nga xam ne ndaw Serigne Touba la boole ci ànd ak uh, waa xidma bi xam nga wax dëgg yàlla am di ci am mbégte di ci am kontante suñ xol sedd ci guyu tey ñaan xam lu luñ man réew déwén ñu man lu ko ëpp ndax wax dëgg yàlla depuis démb ba léegi nelawuñ depuis démb ba léegi nelawuñ te duñu ci lal xam nga ngir lan jëmmal bis bi rek waa am ci kontante xam nga tey ñaan sëriñ bi doolu ñuy xéewal ba dëwen lépp luñ ci def rek ren di déwén ñu def ci lu ëpp ndax wax dëgg yàlla mbooloo mi takku na te suñ seet na guy liñ ci doon séntu sëriñ bi mataleel nañu ko di ci am contentement nag bu baax a baax waaw waa idée bi idée bi moom nekk na loo xamante ni luñ toog waxtaane la te xam ne xam nga ndaw moom mooy lépp te tey Serigne Touba ndegam mag ñee koy liggéey asima ndaw ñi te li nekkoon ci mag ñi la dini def ko si ndaw ñi te ndaw ñi war ko àggale ëllëg moo tax tey ñu xalaat loolu xam ne lii lu mën a nekk la yàlla dogal ñu def ko mu réussir wax dëgg yàlla ñu ngi ciy kontaan di ca mbégte bu baax a baax. waaw boobu maanaam Bamba Day amul mais xol yi ak xel yi yëpp ñu ngi koy Bamba dey ndax Bamba Day moom chaque jour la du loo xamante ni chaque année day am ndax bii parce que toog nañ fi benn yoon amul xam nga mais boobu ñu ngi koy def ci xol yi ak ci jëmm yi ak di ko jëmmal wax dëgg yàlla am ñu ngi ko doon def ci xel yi ak xol yi di ko jëmmal bu baax a baax a baax waaw wax dëgg yàlla am ci am contentement nag bu baax. waa bernde yi moom depuis barki dembu ba léegi dem nañ ci store yi jënd lépp lu ñu war a jënd depuis démb ñu ngi commencé togg ak barki démb ñu ngi commencé togg biig ñu fanaane defar café yi ba bët set bi ñu xëyee àndaat ak gan ñi boobu ba léegi ñi ngi ci te dañu jëm ak ñoom suba wala ba ginaaw suba waaw fii gan ñaa ngi fi berne yi dina dina gën a saawaan baawaan kafe gi dina gën a saawaan baawaan ba ñëpp wax dëgg yàlla am dinañ ci gis seen bopp bu baax a baax ndax ndimbalul sëñ bi moom wax dëgg yàlla am maanaam dépassé na fii ñun chaque jour suñu xol ak suñu xel xam nga dañ ciy xalaat lu baree baree baree baree bëri ndax wax dëgg yàlla am suñu xol daal sedd na xam nga te sëriñ bi daa nekk loo xam ne buñ ciy wax moom dañ ciy am mbégte moo xamante ni xamuñu fu mu tàmbalee tey xamuñu fu mu yem quoi waaw am nañ ci contentement bu baax waaw di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp xam nga nag ndax gis nañ taxawaay bi ñi ci ñëpp sonne xam nga muy gan ñi fi ñëw muy ñi yàgg xam nga gars yi sonn nañ ci lool xam nga tey ñaan yàlla xam nga déwén xam nga mu mu mu gën a piir bii xam nga ndax suñu xol wax dëgg yàlla am yàlla déwén mu gën a piir xam nga sëñ bi gën ñoo defal ay xéewal ay xéewal yu baax a baax a baax ban gën koo mën a liggéeyal ci darajay Moustapha ñi ngi am contentement di sant ñëpp di gërëm ñëpp xam nga ànd na demaat ci waar wi rek ba ci kanam ñu gisewaat waat Aziz Mbeng la waaw Abdoul Aziz Mbeng la waaw man maay jëriñu café gi maa maares kafe gi xam nga di ci def lu lu lépp luñ ci war a def daal ñu ngi ko ci def te ñaan yàlla sëriñ bi dooleel ñu ba déwén ñu def ci lu ko ëpp ci daraje Moustapha waaw xanaa li si njëkk rek di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di ñaanal Cheikh Mountakha Bachir mu gën fa yàgg te ànd wér di ñaanal suñu am di Modou Mbenda bur yàlla gën a oyofal yan maam Serigne Fall bi di ko ñaanal Mbacke Fall ak Bousso ak bépp Cheikh Serigne Touba ak sa maam Serigne Fall waaw teewaat fii maanaam dundalaat li nga xamante ne mooy ndigal sëñ Murtala sëñ Murtala Mbàkke nga bur yàlla gën a fayal góor yàlla si nga xamante ne mooy Bamba Day bii nga xamante ne ndigal la si joxoon ne fu waay nekk rek bi mu fi daan nekk si kër bi waaw kon ñu amaat si mbégte bu baax a baax di santaat yàlla di santaat Sëriñ Tuubaa ak sa maam Seex ba ñu amatee tawfeex ba teewaat ko fi daal ndaxte ñaari at yi passé comme ni ñu ko xamee rek nii feebar bi lëmbee woon àdduna bi ñaari at a baax ak sa maam te mu kawee njott loolu ndaxte mbooloo bi boo seetloo mbooloo dafa mel ne mbooloo wuusi nañu bu baax a baax daal ko fàttaloo daanaka bi ma ñëwee si dëkk bi quatre-vingt-dix-neuf ba tey xam naa li ma koy tëbal matul matul juróomi yoon waaw quatre-vingt-dix-neuf ba tey yàlla yàlla ñu sàng si loolu ñu fii si dëkk bi waaye li ma ko manqué daal matul juróomi yoon waaw kon nag daanaka boo jëlee. 22 wala 23 ans boo si génnee juróomi at daanaka li si manqué du bëri daal ndaxte liggéey yàlla la woon moo tax wax dëgg fa yàlla bu ñu amulee ngant bu ngant dëgg dëgg dëgg la moom duñu nekk suñu kéem kattan ñëw ànd ak suñu njaboot egsi teew si ñaari at yi absent am loo xamante ne moo dëgg fa yàlla manqué woon na ko suñu xol ndaxte comme ni ko gisee ne da nga fay gis maanaam mbokku taalibe yi fépp lu ñuy jógee si àdduna maanaam li si ëpp si si Amérique maanaam bés bi dañ koy bàyyi xel daal ndaxte fii la mbokku taalibe yi di dajewaat saafantewaat am ñoo xam ne dañuy jógee ba Canada daal maanaam kon nag ñaari at yi nga xamante ne moom duñu ko woon am na lu mu am na lu mu lu mu lu mu am woon suñu suñu am na am na xam daal maanaam manqué woon nañ ko suñu suñu suñu suñu suñu ruu daal waaye nag alhamdulilah ba ba lépp ibiwaat ña ngi ñaan suñu borom dimbale ñu si barke Cheikh Mountakha ba mbas bi gën a jeex ba ñu gën ko mën a gën koo tàmbali dundalaat daal 99 waaw waaw waaw man nag maa ngi dëkk Washington maa ngi dëkk Washington waaye nag xam nga Bamba Davis si Mourala si si bi mu koy mënti jamonoom moom si wàllu boppam da daan ànd si marché bi bi mu demee ba tànkee commencé ko sonal ndeysaan sëñ sëñ Mamour Mbacke commencé wax dëgg fa di ànd ak mbooloo mi nga xam dañ daan dox comme ni ko gisee ni si gën koy gisee nii si caméra yi ak si film yi maanaam dañuy génn maanaam ñii di jàng alxuraan ñii di durus ñun Baye Fall ñuy turu yëgri turu yàlla bi maanaam di ànd ak mbooloo mi di dox ay ay di dox ay ay ay ay ay ay ay ay mètres yu bëri maanaam policiers yi dañuy escorter nga xam te ne loolu yëpp liggéey suñu service waaw maanaam mu doon mu doon lu kawe njort chaque année dañuy gis ne mbooloo mee ngi yokku daal maanaam mbooloo jéngi gën a wuyu si maanaam xanaa di soñu sama bopp soñu mbokku taalibe yi ndax da say leen nag moo ko ñoxloon moo mooy ni américains yi nga xamante ñoo nekk si réew mi maanaam ñu xëcc leen si si diine bi daal ndaxte loolu mooy wax dëgg fa yàlla moom mooy mooy mooy mooy solo bés bi daal maanaam ba fexe ñi nga xamante ne ñooy waa dëkk bi ñoo fexe wuy si wuy si wuy si wuy si wuy si lislaam daal waaw xanaa li si soñu sama bopp rek li si njëkkee moom li ñu ni nit ki mooy booy woote da ngay da ngay tàmbalee sa bopp kon maa ngi siy woote maa ngi si sàmm maa ngi si woo sama bopp di woo képp koo xamante lislaam ñor na la naata sëñ sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa daawul wax kër Sëriñ Tuubaa dara wax kër islam naata kër yi ngay gis ni yëpp dañ fiy jullee juma di fi jàngal alxuraan di fi di fi kuréel di fi tudd yàlla kon loolu loolu amul lenn lu si génne diini gi kon na képp koo xamante ne wax dëgg fa yàlla yaa ngi wax baatu laa ilaaha illallaah rek maanaam am nga wàllu ci kër gi daal kon yàlla ñu bur yàlla may doole poos ak xol ba ñu ko joxee ba ñu yeesalaat ko ba mu gën a yàññe nga xamante ne daje ñu fi daan dajale maanaam dana dana dana dana mën a wéy daal yàlla ñu suñ muntaxaa dimbale kàttanal ñu ba ñu teewee ko te am poos ak ak ak aadiyee ko bañ ko bañ ko defee daal maa ngi tudd Baye Fall Ablaye Tamba maa ngi dëkk Touba Washington taalibe sëñ Cheikh Ndigal ñu koy siyaare di ko ñaanal fan bu gën a gudd ak wér barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi leen di fay. voilà tey di waaw d' dañuy sant yàlla parce que yàlla moo dagaloon nekk euh, ñetti at yi weesu euh, Covid 19 dafay jox ci diggante bi ba du ñu mën a def euh, lii di nga xam ne mooy célébration journée Cheikh Ahmadou Bamba. bon yàlla mayaat ñu yëkkatiwaat li mu indi woon muy euh, euh, feebar bi Covid 19 ba ñu mën a alors euh, nekk fii di célébrer bis bi nga xamante ne que voilà tradition la maintenant ci diaspora bi symbole la ci diaspora bi bon au-delà des États-Unis defe naa ne Bamba Day Sénégal sax dañ ciy prêter attention parce que li muy symboliser moom waaw xam nga euh, dëkk boo fi nekkee pendant très longtemps parce que euh, proclamation bu Bamba Day ñi ko njëkk am en 89 88 la fi sëñ bi euh, njëkk dem ci le maire Mayo Dinkins mu recevoir ko ñu def Bamba Day en 89 donc boo ba léegi bu dee une communauté mi ngi nekk fii di def lu mel noonu successivement chaque année ñu def ko mosuñu am rupture loolu mooy wane ne que communauté boo xam ne la communauté bu respectable la te dëkk bi boo nekkee vraiment une communauté respectable loo fi bëgg mën ko am donc euh, moo tax yu mel nii bu ñëwee c'est des formalités il y a des bon demandes d'autorisation à déposer yooyu kii yooyu waaye c'est des formalités pour la plupart ndaxte xam nañu ne ñii bu ñu jógee jàmm rek lañ moo leen yëkkati bu ñu jógee yëkkati lu baax rek la et lu rafet donc euh, day contribuer ci li nga xamante ne que mooy richesse su culture américaine d'abord mais aussi enrichir euh, l'aspect religieux euh, l'aspect de la paix la promotion de la paix ak yooyu yëpp euh, nga xamante ne que mooy dégg dëgg jàngale sëriñ bi. mais nag aussi euh, comme ni ma ko waxee sànq président de la république ni mu koy defee chaque année mu yónnee fii une délégation une forte délégation euh, ministérielle buy ñëw di ànd ak sëriñ bi ci activités yi mais cette fois-ci ñëpp xam nañ ne xat na ndaxte jeudi. dimanche war a nekk élection dafay jafe nit mën a jógee Sénégal ñëw def lii après mën delluwaat à temps pour mën a def loolu nga xam ne mooy euh, le vote loolu moo tax euh, jotuñoo ñëw waaye comme ñoo ko fi toogal aussi mu jox ñu wool ñu boppam nañu nañ ko fi représenté nekk ci wetu sëriñ bi ba nga xamante ne que lépp loo xamante ne war nañ ko yëkkati ci kaddu ñu yëkkati ko ci kàddu lépp loo xamante ne que mooy feddali kóllëreem moom sëriñ bi ak euh, président de la république ñu mën ko yëkkati seedeel ko ci kanamu kanamu sëriñ bi ak kanamu mbooloo bi ñu xam dëgg-dëgg aussi Euh, taxawaayu président ci li nga xam ne mooy euh, wetu institut Al Azhar mu nekk loo xam ne lu yàgg la parce que je rappelle que depuis 2012 ci la ñu commencé di reconnaître le bac di orienter ñi nga xamante ne que ñooy des étudiants ci euh, université Cheikh Ahmadou Bamba boobu ba léegi ñu koy def donc loolu aussi sëñ bi vous l'avez entendu moom it mu yëkkati ci kàddu am ci mbégte vraiment remercie ci président ci ci reconnaissance boobu ak acte yooyu nga xam ne mi ngi koy posé. jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñu doon seetaan Senego TV senego point com tey nag euh, ñu ngi woon fii ci New York gis ngeen bu baax marche bi commencé nañ ko depuis 10 heures commencé ko 116 commencé ko 125 dox jëm fi nga xam ne moo nekk 137 euh, ci Frédéric Doglage comme gis ngeen cérémonie bi ak waxtaan yu solo yi nga xam ne am na fi Serigne Mamour Mbacké def na ko gannaaw lu toll ci ñaari at yoo xam ne gannaaw ba ñu mbas mi tënkee Bamba Day amul tey nag fete nañ ko ci jàmm population sénégalais wala communauté sénégalaise bi nga xam ne ñoo nekk fii yëpp ñëw nañu fête Bamba Day bi comme nañ ko daan amalee chaque année mu nekkoon Seydina Alioune Ndiaye fii ci New York pour Senego TV